mbokk Sénégal man Ahmadou Diop seen fidèle chroniqueur hebdomadaire ak seen serviteur moo leen di nuyu ci sunu waxtaan wi ñu tuddee xew réew mi ma leen koy defal Vous Yalla. allah. bu me fi Yalla Baye. bu fi Yalla tous les mardis Inch'Allah à partir de 17h GMT heure de Dakar soit 19h heure de Paris Vous ko ñu leen koy à travers les ondes de notre radio Sunker FM la première radio panafricaine que en Californie ca Los Angeles sommes une radio exceptionnelle bu de renommée internationale kon 12 novembre 2019 sunu waxtan winu tudé tuddee xew amna solo du ma diko wax day gëna am solo sunu réew day ah melni na ni daal benn baadoola moo fi nek yirif ñepp ñepp tële nous devons li connaître, nous utiliser ces justiciers soumis aux ordres qui s'écartent dangereusement qui s'éloignent yoon ndax dañu jubadi que ñu lu le jouet et aux attaches d'un prédateur en Afrique sous tutelle coloniale babu les médiocres de référence font l'histoire à la place des bons minoritaires lolu mo fi nek ci Afrique ak ci senegal tout dictateur dafa am ginaaw waaw ginaaw yu yaatu lañu am motax ñu def lu leen neex waaye nag nun da naan masla ba kañ nag kino amal affaire jubut mësta jub te xam ko waaye yoonum nekku ci un pays entier ñoom dañoo nekk ci masla maanaam ci résignation buñ ko seetloo ba seetlu ko ni ku tax nag waaye loolu am ci ne rek ci la nekk ne ci leneen depuis juróom-ñetti at te lolu ëpp na par décret présidentiel Maki, c'est le personnage